في مولدي في مكة في يوم عصنين لا أمان فكيف نار نبي لا جد ñu am gan gu ñu naan Rasulullah ci ñaari weeram la ñàkk baay juróom atam la ñàkk baay juróom atam la ñàkk maam jirim la woon ya ñaari avant yi bal na xam wala su ko wala kala ay ay miro mu da bala ay miro banje ngata way bulo muta daw da dia te fo ngen ngata ke kontan di tisula ni kata kuma di mal fo ye fo fo bata boru itele lafta hanin manda ha itele benjang fo jan nin kafa no mamel mo boro na ko bara bara ni ngam boro ko do ni si ko na b a y si ngam boro bara to ke no kata do i a k a n g b a e l n g m g a n s a a t d a n parang g u l i a parang mga kasiyan. kenarba you ma kende ida mo me sungor ko lebe ibe sungor ko lebe ibe dongal ibe misigla mo o da ngal ba o mangi be ni sungor ko ko ka ko tamana ko misigla mo ibe dongal ibe misigla mo o da ngal o manga siya ko manga kasiya da ka kasiya ka rafi waji kasiya da waji yo suni mo yana misuko ko bile ko la ko la mo la mo yana donna ko wala dok ha mo ka la mo kasa ka sungor bai kana na na na mal foye foye foye batal

mo ka saka na ni kon na de telefon ah kila last time mo jani sun karo si an sa ku bi no ko sin dengi o ba kan le kalo imma di la kon oh, si fa ke la fo ma ma dan la fa me o ba kanu le bilai na bo ni ngar na kon si fa ke la inna la nda fo malo ni la kanu ba do mun do sa na bo ni ngar ina de ya na ye o ba fi le la hali da ata garam ta ko ile ko ma ko ma ali ali yo wala fo de na ali yo fa ya lan kan ban ngal la ko la yalla kola diamu ali wala no ko sunkini wol fa kuma balla ni kanu la mo mi ati lo kol so ka to jam ni ko ni boy son tanga to la in bar dama go si faju yalla aji wa nga me si fa min no na ram me kanu ndo kelen e eh, bu kare ngal lo ne ko ani fo e mi ro dani sungaro bi si da sungaro si han sa be no sungaro fo ko mam fasi ni kanu ni me kanu ndem fan dande ni ngoya wala ko dara ko nga ma ko ninga non na ite man do bar na bolo no ko ninga na ko nga ko nyaami rek diamu ali wala ni kanu la ŋe kanulo waya bara an mi kam ala ma min lo min ma la ka wala mon non don defo ni be sino fo lan ka sigo la pol be man ka sinaro fo man ka no sibate la

Kaspa bi nga ne amulo Kaspa bu tey lu tax nga naan ma ñëw seetaan see ko sa kër ma ne defuma dakk maa ji dafa important torop ci man te dama koy seetaani de man mii sax suma kër laa dem seetaani ko waaw aw ma benn inja kaay ma suma Kaspa bi yow iya, yow nii lan la dafa indi lu es, ah. lu ñoo wax Q power ak ah, Q power mun ngaa recharge sa Kas power through SMS ah waa léegi su ko bëggee am suma lu may def loo soxla rek mooy amal sa Qcell line soo ko amee ba pare. waaw nga registré si sa mita bi. waaw mun nga see registré bi ñaari mita. soo soo registré sa mita bi ba pare. Hmm. da xayma ñaata nga bugg a jënd nga yónnee ko si tri tri tri dégg nga su fekkee ne nag kiw power scratch card bi nga amee da ngaa xoos pin bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa kóot nga lóot ko am sa kas power sa lampataal sa télé taal sa kër taal. xam <laughs> nga kon gaawal nga dem dugal yi dugalal nekk si gaaw. ma di toog de toog de <laughs> xam nga nag li ma di wax. Kiwsel daal moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu waaye Kiwsel moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu. cimbeeg sotteeg yi ñi di. te lii rek a fi des. lii rek a fi des si biscuit bii. kon man karton yi ma jëndoon yëpp lekk naa yi fa jeexiti. wala ma saale yi kenn mu ñëw ma yónni ko si bitig bi. na naa. am dama ci bitig bi nga jëndal ma biscuit bi. xamee ko bu baax. mu rek dundaloo pire. muñ ci milk sotteeg biscuit. yaa koo gis. gaañ yi bari nañ fi nag. waaye benn bu bii. boo ma jëndalee beneen biscuit bu ko may. tey ma fase sa yaay. fase meenam bi. fase. waaye du ko la ndax ne xaayim muñ ci mil sot bii àdduna bi ba ko waxantoo ndax suma doom yi dama leen yar ci xàmmee lu baax ak wàll muñ ci mil sot keek biscuit bii ñu liggéey ca réew Sri ci compagnie bañ nan Saral Biscuit Limited CBL ñu ko def ni ci gannaaw paquet bi ngeen xamé ko bu baax rajo bu rëbb biir man suma biir bi ak suma biir yi lu ci mëna a duga lu óor la do amna na ci bépp bitik ci marché ci supermarché ku ci bëgg lu bëri mbaa koo fii dem ci ay MFH group. M U N C H E E Munchie. kenn du mo man wat naa ko lii muy waye kiss naa ko. You get my new pool, man, Get snagged.